mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah daleen ak jàmm yéen ñi suivre seen site internet bi di 24 actu yi comme niñ ko baaxoo di ànd yéen saa su nekk ci seen émission bi ñu dippee invité de la rédaction invité de la rédaction nag yaakaar naa kenn ku nekk ràññee ne ko ci biir 24 actu yi tey nag ñu am gan gu mat gan di imam Assane Diouf xam naa ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo imam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna euh, Ndeye Astou Sylla mhm. di leen di rafet lu baax seen liggéey yéen waa 24 actu mhm. di ñi nga xam ni ñooy seetaan. ak fu ñu mën a nekk rek. jërëjëf euh, imam Assane ci nuyoo bu am solo boobu imam fi nga xam ne fi la ñuy jiite mooy euh, tey mën naa ne donte am na ñu bëri ñoo xam ne ràññee nañ kan mooy imaam Assane Diouf waaye tey bu ñu bëggoon a xam kan mooy imam Assane euh, lan nga ñuy tontu pour ñi nga xam ne xamuñu la woon ñu xam kan mooy imam Assane. waaw man de xam naa ci lu gàtt rek ab jàngalekat laa buy jàngale ci institut Al Azhar bu Al Azhar Ndaam. Mm-hmm. kër suñ Tuubaa gee nekk Daaru naa it maa ngi fay jiite àjjuma. Mm-hmm. bokk naa ci daaira Rawdu Rayaahin mm-hmm. ak daayiratu ansaaru diinil islaami xam naa doon séeréer daal. <laughs> jërëjëf euh, imaam mu mel ne xam naa kon euh, yaa ngi jàkkaarloog euh, sa mbokk waaye tam imaam assan comme ni nga ko waxee woon mu mel ni tamit yaa ngi nekk imaam waaye tamit yaa ngi jàngale ci Al Azhar bu Ndam bi école si Mourtada yi waaye tam imaam mën nañoo xam ndax laataa ngay ñëw ci école bi di si jàngale est-ce que mën nañoo xam ci yenn école nga jaar avant ngay ñëw fii nga xam ne mooy Al waaw man laata ma ñëw Al-Azhar français laa doon jàng ba amoon certificat entrée en sixième yàggoon na 88 si laa jànge woon alxuraan itam ci suñu kër sama papa jàngalekatu alxuraan ba wàccoon alxuraan ginnaaw bi laa ñëw fi institut Al-Azhar yàgg na lool ba tey fi laa nekk ba di jàng ba jeexal di fi jàngale daanaka ginnaaw bi daanaa dem xel koom nag ak ci jàng ci jumaa ji ak ay majaalis ak yooyu waaw mm-hmm. daanaka loolu daal ci gàttal mooy sama njàng daal Euh, jërëjëf euh, imam euh, am na solo mu nekk loo xamante ne lu am am solo la waaye imam tey fi ñuy dikkee mooy ñu toll jamono joo xamante ni en tant que imam waaye tamit en tant que jàngalekat comme ni ñu ko waxee nga xam ne mën nañ ne daanaka weer yi ñu dëdmal ci suñu kanam rek fii ak ci weer yi ñu dëdmal lañ wax ne ñenn ci école yi ak ñenn ci ndongo yi dinañ delluwaat ci seen bërëbu jàngale jàngalekaay en tant nga nekk jàngalekat ñu toll ci jamono joo xamante ni ñu ngi tolloo ko mbas mi di Covid 19 kenn ku ci nekk di ko maytu anam ba koy maytoo ne nag am na ñenn ci ndongo yi ñoo xam ne dinañ delluwaat seen bërëbu jàngukaay en tant que yow nga nekk borom xam-xam te ji euh, lan ngay ñaax ñi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi ak ñi war a jàngalewaat war a delluwaat ci daara yi ci ban méthode lañu ko war a dundee ngir mën a moytu doomu jàngoro bi. waaw mbas mi daal yal na ci yàlla musal te ñi ko xam ne itam ñoom la dal yal na yàlla euh, saafara leen ñi ci faatu yal na yàlla yërëm ñun nag jàngalekat yi wax di yàlla jàngalekat yëng nga ginnaaw feebar bi. yëg nga jam nga jam-jam ci soxol ndax xam nga ku tàmm ay élève ak donga mhm. soo leen gisut waxtu yu toll nii moom da am loo yëg mhm. mais yàlla moo ko dogal dañuy nangu dogalu suñu borom bi xam naa daal li ci am solo bu ñu ñëwee ñi kenn ku ne na jël ay matuwaay mhm. ndax nag euh, mbir mu ne da nga koy laaj na ko xam fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun comme euh, ñun médecins yi ñoom lañ am amuñ ñeneen lañ wax wax dëgg yàlla mënuñu lu dul nangu ko te it lañ wax di takk masque ak euh, na ma nu mu tuddati dem euh, waaw yooyu yëpp ñu jël matuwaay yi nga xam ne joxe nañ ko mm. jàngalekat yi tam xam ko defandoo ko ba balaa ñu la koy wax parce que rek ba bañ la naan ñëw naa la defal lii defal lii waroon ngaa war a mën a moytu yooyu daal mm. yooyu daal jàpp naa ne war naa mën a nekk bu defee nag ñu ñëwaat ci jàmm organiser ko mm. sorente kenn ku ne jàngale te it yu ne rek ñu moytu ko bu dara xewee itam ñu gaaw jokkook ñi nga xam ne ñoo yor loolu daal te defe ko anam gi nga xam ne moom lañ ko tege ànd ak xel ak xereñ bu defee yaakaar naa ne dañ mën a jàng mm-hmm. ndax fii ñu toll wax di yàlla namaat nañ élèves yi élèves yi itam bëggaat nañ jàng dañuy laaj oustaz kañ la ñuy jàng kañ la ñuy jàng ba doo xam loolu leen du tontu sax mm-hmm. ñoom bëgg nañ ko parents yi bëgg nañ ko mm-hmm. mu doy waar loo yàlla ko indi yàlla na ko fi jëlee jërëjëf euh, imam waaye tamit ñu nemmeeku ne yaa ngi ci école boo xam ne ku ne xam na ne nekkul école bu ndaw ndax institut al azhar bu suñu nga féetee euh, mu nekk bërëb boo xamante ni mën nañ ne bërëb bu yaatu la ci wàllu sàkku xam-xam tey euh, boo xoolee mën nañ ne classe yi nombre de personnes nga xam ne ñoo fay nekk dinañ xaw a takk lool loolu tamit mu nekk loo xam ne dina xaw a jafe ngir dund ak moom doomu jàngoro bi waaw loolu moom kilifa yaa ngi ci waxtaan mhm. dañ def noo xam ne xam naa ne dañ ko def nañ ko xaajalaal noo xam ne noonu ko état bi diglee rek yaakaar naa dañ ko jéem a defe noonu ba nga xam ne léegi dinañ mën a jàng ci anam goo xam ne nag euh, euh, lim laaj ay conditions des na ko def loolu moom direction général ñu ngi ciy xalaat ak euh, mboolem directeur yi nga xam ne ñooy directeur école yi ak seeni collaborateurs ñu ngi ciy xalaat ba na ci parent yi daal seen xel dal xam ne ku ci ñëw itam bu soobee yàlla de sa doom daal des na ko teg ci condition yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ moytu daal luñ man la ca des nag dogalu suñ borom la waaw kenn mënu ko moytu mm-hmm. waaye nag des na ñaan yàlla mu musal nu ci feebar bi daal mm-hmm. waaye dañ jël en tout cas liñ man en tant que euh, ñun ay jàngalekat itam kenn ko da nga jël say matuwaay bu baax a baax a baax mm-hmm. Euh, jërëjëf xam naa fi nga xam ne rek fi la ñu koy euh, jeexale mooy ku ne xam na ne comme ni ñu ko waxee woon sànq daanaka booy xool ma ngi ne dañoo toll jamono joo xam ne axiru zaman lañ nekk am yu bëree bëri yoo xam ne ay yu bëri yoo xam ne da koy dégg te daa boo ko dégg bu njëkk nga dégg am na waajur boo xam ne dafa faat doomam am ñoo xam ne dañoo def nangam ak nangam mu nekk loo xam ne da koy dégg mais yow sa jëm bopp sax da ngay xalaat sa xel na yow ni euh, nan la doomu aadama mën a tiimee moroomu doomu aadamaam di ko faat wala yu mel noonu mu mel ni tamit nemmeeku woon nañ fi kaa bu mel noonu jamono ji waajur boo xam ne mën nañ ne Euh, bi ñu gëstoo ba am lu leen leer dañ ne kat moo faat ñaari ñi nga xamante ne ay doomam lañ ci information yi nga xam ne moom la ñuy joxe te bi ñu ko toppee mu nekk lu wér euh, loolu tamit euh, en tant que imam waaye tamit en tant que waajur lan nga ci ñaax ñi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel. Ah, loolu de xol xol xol xol bu metti rek ndax loolu kenn mosu koo gis rey nit rek dafa rëy rëy am muus sax dafa rëy rëy na lool mm-hmm. waxuma laa doomi aadama waxuma laa sa doom loolu boo ko dee seet ki. mu ngi bon na su ma radadnaahu a saafiliin mm-hmm. mooy mooy tey yow yaa ngi doon xaj xaj eh, xas xaj mm-hmm. ak muus mm-hmm. tey muusa la tane wax dëgg yàlla àgg nga ci daraja boo xam ne yow fa muus nekk rus na li ngay def ndax wax dëgg yàlla su bàyyi ma yi ñuy xas naan yaa ngi mel ni nàngam ñoom rus nañ lu mel noonu te yàlla teral la jox la xel jox la xalaat di la dimbale waaye lépp nag la koy waral mooy xaalis nit dana toll ci bëgg xaalis ak bëggee ak euh, dëgg bëgg topp opportuniste koo xam ne boppam rek dana toll foo xam ne daanaka lu muy def dootu ko xool xaalis bi rek lay xool xaalis bi loolu tam ma des na ci xoolaat nit day doylu day doylu soo xoolee ñi nga ta ñi la tane ñi nga tane am na ñoo xam ne tey bu ñu dëgg jógoon fi ñu nekk rek ñoom sant yàlla demal hôpital am koo xam ne tey bu ñu ko noonu euh, da dundal ba déwén rek mu sant ndax ren ji euh, faatu na kon yooyu itam nit day sant yàlla di xool ñi nga tane bari nañ loolu ñoo ëpp te bañ a xool ñu la tane waaye am na ñoo xam ne fu ñu toll ñu ngi téen di xool rek di xool di xool ba tax yooyu yëpp ndax loolu ay sacrifice yoo xam ne la mm-hmm. am na ñu koy def nag ñu bari ñoo xam ne fee mm-hmm. suñ borom subhanahu wa taala lu waay def dana la ko wan waaw yow ma tubla sarairu lépp ay leer mm-hmm. loolu am na ñu koy def ñu bari ñoo xam ne fee ñuñu ñoo xam ne itam sëriñ si koy def nañ bàyyi li ñuy def ah dimbali nit mu rey nit loola de eh, ku ko def it suñ borom subhanahu wa taala nga koy digaal bakkanu xam nga ne ko ma ma wax ko ab yonent masalan bu fekkee ba muy doon liir wala ab waliyu yàlla yi jariñ eh, mbooloo mi bu fekkoon ne ba ñuy doon liir lañ leen rayoon ak liñ jariñ ci àdduna mm-hmm. xoola lu rëy noonu mm-hmm. moo tax alxuraan ne ku rey benn bakkan day mel ne àdduna bi bépp nga rey waaw kon loolu mat naa bàyyi xel bakkanu doomu aadama doon sa sa doom la moomoo ko sàkkoo ko waaw loolu loolu loolu lu ma ci mën a jàpp la mm-hmm. euh, kenn xamul looy wax ndax loolu dafa ëpp ëpp ëpp yàlla na waaye nit ki yaakaar na ba mu koy def doonatul nit nag mm. doonatul sax bàyyi ma mm. gën naa weesu loolu moo tax mu mën koo def kenn xamul lu doon waaw loolu daal kenn xamul lu mu doon ka ko ca dimbali it kenn xamul lu mu doon mm. ñoom ñëpp a yam yëfi saytaane la mm-hmm. saytaane nag nit da koy moytu di ko muslu waaye bàyyi ba saytaane jekku la ba def la ndax loolu saytaane la mm-hmm. moo dugg seen biir bañ fees dell dell dell ba di leen def loo ko bàyyiloo yàlla nañu yàlla musal ci moom te ñu ci yàlla ak yonent bi Euh, jërëjëf euh, imam ci euh, leeral yu am solo yooyu xam na imam sa kàddu yu mujj ci émission bi ñu dippee invité de la rédaction. naa soxna Asou di leen sant di leen gërëm rek du nuyu sama doomu baay mi sëñ Modou. Mhm. xam naa ñoo bokk sax koñ. Mhm. yoon daara di leen nuyu baax di leen ziare di muy itam mboolem ku ñu seetaan. Mhm. di leen ndokkeel bu baax a baax di leen ñaanal yàlla tawféex ak tayseer ak mboolem li ñuy sàkku te musal ñu ci mboolem li ñuy ragal. barke amin euh, oustaz ñu ngi lay euh, jaajëfalaat bu baax di amaat euh, mbégte ci ànd beeg yow bokk ak yow jotaay bi rawatina jotaay bi ñu dippee invité de la rédaction comme ni nga xam ne rek noonu la ko yaatale ci biir kàddoom rawatina mbas mi nga xam ne mooy covid 19 ku ne xam ne ne toll nañ jamono yoo xam ne tëju metti na surtout borom kër yi nga xam ne ñu ngi seen biir kër am lu bëri war leen dematuñu dikkatuñu mu nekk loo xam ne lu méttee métti la waaye tamit di ñaan suñu borom rek mu saafara loolu waaye tamit comme ni mu ko waxee di dalal xeeru ñi nga xam ne ñooy parents yi ne incha bis bu demee ba njàng mi commencé waat Euh, te mbas mi jugeewu fi bépp matuwaay ba ñu war a a jël dinañ ko jël incha allah rabbi mu nekk loo xam ne message bu mu jàllale la ngir dalalee ko xelu ñi nga xam ne ñoo ñooy yi ñu ngi xam yàlla ko suñu borom subhanahu wa defal waaye tamit di jaajëfal suñu caméraman bi di Modou Diouf nga xam ne tey image yi bu demee ba leer ba ngeen mën ñoo seetaan ci anam ba ngeen ko bëggee euh, ginnaaw yàlla moom la waaye tamit ñu leen di jaajëfal di leen la rahmatullah wa barakaatuhu